dama ne ñun duñu défendre kenn koo xam ne liggéeyul ku mu dàq nag si place am fii la ko fekk si poste bi fii ayota fii jaax di corne mu corne déggu ko même jour si la ko génnal maire bi loolu moom dafa jàpp ne moom moom maire bi même jour la ko wax ne génnal maire bi ñaan nañ ko loolu mu bañ nag dañuy dem ak moom si combat ba mu jeex dama ne loolu mooy tëngeej nit ñi dañu soxla ay emploi dañu soxla ay jàppalante mais ñëw même pas six mois préparé na woon feeraay bi jëloon na 15 personnes ay nitam parce que dafa wax nit ne dañuy dàq ba muy campagne dafa wax ne dañuy dàq pour dugal seeni nit defoon na nag 15 personnes feeraay pour dugal leen mais loolu du jàll te mënul jàll ndax ñun si dëkk bi la ñu bokk dama wax ne hmm. ñun dañuy soxle kii nu mu commencé dañu soxla délégation spéciale amul xam-xam amul xam-xam mënul yore mairie bi waaye xale yaa ngi liggéey ku dafa bëgg a dàq nit ñi pour jël ña mu doon politigal bëggal leen ci maire bi loolu duñ ko nangu bañu ñu si suñu bakkan merci